ak Adji Sarr te ñi nga xam ne ñooy farandooy njiitul Pastef dañoo jàpp ne dañu ko bëgg a teg loxo loolee moo tax xale yi ne amee ba ñu ñu ci nobbuñ sañum guerre xale yi démb tàngal nañu mbedd mi ba mu tàng jër farandooy Ousmane Sonko yi yéen gi di Rewmi Quotidien nee na atteb tey ji la waaye nag ñi nga xam na ñooy farandooy Ousmane Sonko yi démb wàcc nañu ci mbedd mi yéen kay gi nee en tout cas tension bi ne démb gis nañu ko ci dëkk bi jégg na dayo rawatina sa diwaanu Ziguinchor bi nee na farandooy Ousmane yi nag maanaam démb daal nañu réussir lu jëm ci wàllum confrontation bi mën na la jàmm jàmmaarloo bi nga xam ne moo amoon diggante ñi ànd ak Ousmane Sonko takk der yi bu doon am match de football la mën a premier mi-temps bi ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoo ko gagné yéen kaay gi de Libération xëy di ñu xibaar naan ñu atte bi Ousmane Sonko ak Adji Sarr tey jii la mardi sous haute tension noonu ko journal bi bindee nee na talaatay tey jii boo muy tuulee nar na tàng en tout cas démb tàng na am na ñett ñoo xam ne démb ñàkk nañu ci seen bakkan ndax am na benn policier boo xam ne Xaasim Jeeju la tudd kookee auto police moo jaar ci kaw mu daal di am na tamit benn ndaw bu ñàkk bakkanam niki démb sa diwaanu Ziguinchor ci Dakar Kër Mbay Fall démb tamit am na kenn koo xam ne ñàkk na fa bakkanam loolu lépp soo ko boolee bëccëgub démb bi ñett ñàkk nañu ci seen bakkan yéen kaay gi délibération nee na en tout cas dëkk bi démb tàng na ndax sa diwaanu Ziguinchor tàngal nañu ko ba mu tàng jër waaye tamit ca diwaanu Saint-Louis tàngal nañu ko ba mu tàng jër ca diwaanu Mbàkke tàngal nañu ko ba mu tàng jër ca diwaanu Mbuur tàngal nañu ko ba mu tàng jër ci diwaanu Ndakaaru tàngal nañu ko ba mu tàng jër agent Senelec bu Kasor dañu ko daal di saax-saaxee am na ñaari station essence tamit ci Kasor yoo xam ne dañu ko vandaliser yi journal bi nee na yokk ci Auchan bu Castor commencé war nañu ko yàq yéen kaay gii de libération nee na Auchan bu Pikine Icotaf gars yi sax-saaxe nañu ko vandaliser nañ ko nikk démb dépôt bus Dakar dem dikk bi nekk ci Kër Masara gars yi dañu koo taal yéen gi gii di Vox Populi nee na am na benn auto police sa diwaanu Ziguinchor boo xam ne dañu ko daal di am na tamit benn auto police sa diwaanu Saint-Louis démb taal nañu ko yéen kaay gi nee na am na ñenn ñuy wax ne Ousmane Sonko duñu ko arrêté duñu ko teg loxo waaye nag wax jooju nga xam ne gars yi ñoo ngi koy wax Pape Alé Niang journaliste yi weddi na ñi nga xam ne ñooy wax ne Ousmane Sonko kenn du ko jàpp ñooñu dañu leen a bëgg a leen bëgg tegal ay ndëgg ngir nag ngeen bàyyi confrontation bi waaye nag Ousmane Sonko gars yi ci jàpp ko la ñu jëm kàddu yi Pape Alé Niang nee na ku leen wax ne Ousmane Sonko du duñu ko jàpp bu leen ko gëm gars yi dañ leen di piéger yéen a kaay gi di enquête xëy fësal ci xëtt mu njëkk ne round final bi sa la ñu jëm yéen a kaay gi di bés bi nee na démb am na benn policier boo xam ne dafa daal di ñàkk bakkanam waaye nag policier bi nga xam ne démb moo faatu waajuram wu góor timit démb malaise la amee daal di ñàkk bakkanam yéen a kaay gi di Quotidien ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna muy woote lu jëm ci wàllum résistance loole la Guy Marius Sagna woote yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne nag ñooy avocat yi Ousmane Sonko yi démb ñoom tim wax nañu nee nañu amul benn convocation boo xam ne Ousmane Sonko jot na ko nee na ñu nag ñoom avocat yi bu dee nag condition de sécurité yëpp maanaam tegal nañu leen ko Ousmane Sonko dina dem ci tribunal bi waaye nag yi Ousmane yi ñoom nee na yenn xeetu risque yoo xam ne duñu ko jël balay Ousmane Sonko yi dem ci tribunal bi daal maanaam kaaraange gu mat sëkk danañu ko ko tegal ndax ci lu jëm ci atteb Mame Mbaye Niang ba muy dem ca tribunal ba dañu ko daal di agressé tentative d'assassinat bi nga xam ne moo ci am loolee tamit fàtte wuñu ko danañu ko topp yéen kaay gi nee na démb université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tàngal nañu ko ba mu tàng jër waaye tamit diiwaanu HLM ci Dakar tàngal nañu ko ba mu tàng jër Kassoor ko mu tàng jër Pikine démb tàngal bi tamit démb tàngal nañu na bëccëgub démb bi yoo xam ne dañu ko saax-saaxe bii di la sa xëy fësal ci xëtam mu njëkk nee na le dansé de tous les dansés noonu la ko journal bi bindee yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu Sénégal jamono ji nooyeetuñu dañoo aj nooyi gi ndax nag tension yi nga xam ne jamono ji moom la ñu gis ci réew mi journal bi nee na gars yi dañoo bëgg teg loxo Ousmane Sonko yéen kaay gi nee na bëri na ñoo xam ne jàpp nañu leen démb am na si bari bëri tamit ñoo xam ne am na ñuy gaañu-gaañoo yéen kaay gi di Direct News xëy ci avenir Ousmane Sonko ëllëgëm ci wàllum politique ak lan moo ko mën a fekk ci dossier yi nga xam ne maanaam moo gàll ci ak ndoddama mooy jeexital bi ci élection présidentielle 2024 2024 loole la journal bii di Direct News xëy di càmbara ndax nee na Ousmane Sonko mars 2021 ba léegi sa sunu ko convoqué rek manifestation yi mel ni tulleeg male am na ñoo xam ne jot nañu si ñàkk seen bakkan am ñu si jot a gaañu am lopp ñetti téeméer ci ndaw ñoo xam ne jàpp nañu leen ba dugal leen ci kasu bi Direct News journal lu Pape Jógee Fay bi nee na Ndakaaru Njaay jël jóob ak ci biir réew mi bëri na ci gox yoo xam ne tàng na ba fu tàng yi am yéen kay gi de la sa nee na manifestation yi nga xam ne démb gis nañu ko ci Ndakaaro maanaam soo moytuwulee ci mars 2021 fa la ñu jëm am na ñaari ndaw ñoo xam ne démb faat nañu leen bal lañ leen tóor yéenekaay gi de La Tribune xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci procès Adji Sarr son Sonko bi mu commencé ak léegi am na lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan bugaan gi dane ci biir journal bi nee na gars yi bay boo ñu vigilance maanaam bay boo ñu xoole bu baax a baax maanaam takkatoo joxante loxo booloo ci wetu Ousmane Sonko ngir na gars yi bañ ko faagaagal yéenekaay gi nee na di ci fàll démb dem na sa diwaanu Ziguinchor Aminata Touré tamit démb dem na sa diwaanu Ziguinchor yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na kuréel gi di F24 ñoom Karim jamono ji génn nañu communiqué di jàppale Ousmane Sonko ndax nee nañu parax-paraxe gi nga xam ne moo am ci dossier yi loolee ci boppam moo leen jaaxal te nag ñoom nee nañu fi nga xam ne fi la ñu jaar Khalifa Sall ak Karim du ñu nangu benn yoon ñu fay jaar ak Ousmane Sonko coalition Yewwi Askan Wi ñoom tim nee nañu Ousmane Sonko du weet benn yoon ci xeex bi yéen kay gi di Libération xëy di ñu xibaar naan ñu activiste bi di Ousmane saara teg nañu ko loxo Ndiak Sarr Pastef Louga moom tim teg nañu ko loxo yéen kay gi di Vox Populi maître Ciré Clédor Ly moom nag jamono ji ma ngi sàkku ci CPI cour sur plan ak ñi nga xam ne ñuy waa ONU ñu daal di ay expert ak ay enquêteur si diwaanu Ziguinchor yéen nekk Ziguinchor la ñu koy jox maanaam ci manifestation yi Ziguinchor ñoo jël coupe bi bu doon coupe du monde wala ligue des champions mën a jël nañu ko démb moo tax journal bi de bind Ziguinchor capitale de la résistance journal bi ñu xëy fekk fa Serigne Saliou Gueye journaliste nee na nag manifestation manifestation yi nga xamante ni jéggi na dayu ci biir mi lan moo tax télévision yi wane wuñu ko ana TFM ana Sen TV ana Walfadjri ana 2STV ana ITV Serigne Saliou Gueye nee na autocensure yéenekaay gi de évidence xëy fasal ci xëtam mu njëkk nee na capital bi transféré nañu ko sa diwaanu Ziguinchor yéenekaay gi di Source A nee na Ousmane Sonko maire bu Ziguinchor ma nga jàpp les am toog këram tranquillement yéenekaay gi de Les Échos xëy ñu xibaar naan ñu en tout cas démb na jër waaye nag plaît train express régional bi raay yi yéen i kaay gi nee na école yi démb jànguñu ci ndakaaro yéen i gi di alerte xëy duñu xibaar naan ñu démb sigi coor tàng na jër ab police boo xam ne dañu ko fàtta dragon bu police moo jaar ci kaw ma bëri nañu am ay gaañu-gaañu bëri nañu ñu teg loxo yéen i gi di réew mi quotidien xëy ci Ousmane Sonko su wuy ji wula ñu daal di koy atte lan moo ko ci mën a fekk journal bi nee na mën nañu tëj tëj yoo xam ne dina